الحمد لله الكريم سلم على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني aousubillahi mina seytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim gannaaw buñ sante yàlla julli ci yenent bi gërëm seexal xadim noo ngi sant maam Cheikh Hermé Fall Babul Mouridina di kontaan lool ci liggéey bi nga xam ne moom la ko ki fi nekkal sëriñ tubaa di sëriñ Touba jox nga xane daa jóge ndigal li daa jóge ci Serigne Touba dem ci maam Cheikh Hermé ndigal lu jóge ci sëñ Tuubaa dem ci maam Cheikh Faat nag jóge na fa mu war a jóge dellu na fa mu war a dellu liggéey bi nag yéem nañu yéem goo xane danoo mën a wax ne maanaam bu fekkonte ne ay malaaka dana wàcc di ko liggéey dan naan lii xanaa ay malaakaa ko def ndax kii maan ak suñ borom la waaye lépp nag maam Cheikh Rafa la ndax euh, Serigne Touba bu fekkee mooy guy gi meññeet bi mooy maam Cheikh Rafaal Mm, kon euh, diggante guy gi ak buy bi ñoom ñaar suñ borom da leen a boole te mënuñoo tàggaloo ah léegi nag euh, sëñ bi euh, borom Saxum sëñ Moustapha Diakhaté dëggu gi nga xam ne suñ borom dogal na mu dëgguma di ko gis di ko seetaan noo ngi ñaan ci kàttanug yàlla mi moom lépp te lépp lépp nekk ci loxo am suñ borom dolli ngërëmam ci Cheikh Al sun borom dolli tawféexam yokk ko suturaal ko musal ko aar ko sàmm ko ba lim bëgg a liggéeyal Cheikh Al Khadim mu liggéey ko waaye daal sant nan gërëm nan kontaan nan lool ci liggéey bi maam Cheikh Rafa liggéeyalati Serigne Touba alhamdulilah rabbil alamin kontaan na tax mënunoo wax jërëjëf. jërëjëf borom Touba askay borom Touba cey borom Touba borom Touba moromantewul ñoo ngi fi ci eh, corniche su Belal ba léegi ànd ak yéen ci liggéey Baye Fall yi. ànd ceeg suñ mbokk soxna moo xam ne ki nga xam ne moo nekk ci jiitu soxna yi kon soxna an soxna Badiane soxna Binta Badiane ñoo ngi leen di siyaar bu baax soxna Binta bajaan ñoo ngi fi ñëwoon tey jii ànd ak yéen ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéey bu Baye Fall ànd ceeg soxna Bintu Badiane soxna Bintu Badiane tey liggéey bi boo loo ci yëg ak tey li nga ci xam ne moom nga ci yëg dëgg-dëgg nan nga koy jot jottalee sa mbokki soxna yi nga xam ne ñoo ànd ak yow ci liggéey bi sant yàlla sant yónneen bi sant maam Cheikh Ibra sant sëñ Abdou Kane min bi doon cee dañ cee dox dañ cee wax ndax sëñ bi dañoo jiital may ñu ñuy liggéey baat di ñu ànd ak moom di liggéey lu sëñ bi soxlawu rek soxlawuñ ko bu sëñ bi ne woon ci àll bi la ñuy fanaan ci bi leen ñuy fanaan bu dee ci la ñuy yendu ci la ñuy gëm sëñ Touba rek ak maam Cheikh Ibra fas yéene liggéeyal sëñ Touba rek fii ba àddina tukki saa bu ñu tegee baatee rek ñu tag ko ci barke maam borom Touba Mbàkke nag yéen ñi nga xam ne yéen a fi ñëw itam lépp luñ fa am rek yàlla nañ ko séddoo ak yéen ànd ak borom ndigal rek gaynde xel koom barke Serigne Touba duñ dëpp duñu daay duñ deltu ginnaaw noo ngi topp ci moom rek fas ko yéene nag liggéey añu añaale kul àndal bëgg sëñ bi lool nag sant sëñ du Kane nag min booleeg moom ki barke maam borom Touba yàlla na ko yàlla sëñ Touba Mbacke def maam daam kër siin mu am ngërëm ci barke maam borom Touba. ku ne Baye daan di ndigal te ku ne ndigal jafe. billaahi kon lan ngay lan ngay soññ ñi nga xam ne tey jii dañoo nekk ci ndigal li. ak waxtu wi yenn saa yi mu toll yoo xam ne day day metti loolu te yàgg waaye seen jom ak seen fulla dañuy am ngor mhm. am jom am fulla suñ taaloonu taal sax nun dugg leen te dañ ciy dugg ànd noog sëñ ba jeex tàkk fas yéene liggéey sëñ ba jeex tàkk di war sëñ bi rek nag fu mu nekk rek noo nga fa lu mu soxla soxla na ko lu mu soxla soxlawuñ ko lii ba keroog mu jeex rek noo ngi ndax waaw kon ba keroog ñuy jeex ñoo ci loolu doon na kàddu yu wér yoo xam ne ndax lan ngay soññ mbokki jigéen xanaa nag xanaa nag ñu rek ànd ak ñun ci lii sëñ bi bëgg rek ba ngeer ba jeex ànd ak suñu borom kër yi ba àjjana rek moom rek la ñuy ñaan te yàlla dina ko def suñu mënum jigéen yi nga xam ne nag ñu ngi fi nekk nañ góorgóorlu te liggéey te xam ne ku liggéey di nga añu barke borom Touba ànd ak Baye Ndigal rek gaynde xel ko Saxum Touba seetub murid ñoo ngi leen di siyaar bu baax a baax di leen fas yéene ànd ak ci liggéey bi comme ni ko sëriñ bi bëggee ñu fas yéene koo ànd ak yéen lépp loo xam ne liggéey bi laaj na ko rek incha allahu rabi dinañ leen ko woon comme ni ngeen ko bëggee te jii ñu dukkeen fii fekk fi Baye Fall yi jàkkaarloog suñu bekk benn mbokk muritum Baye Fall salaamaaleykum wa rahmatulah. salaam wa rahmatulah yàlla ñoo ngi siyaar baax te di leen màggal baax te di leen jaajëfal baax yéen waa Saxum Touba. ñu ngi kontaan bu baax ci liggéey bi ngeen di liggéey liggéey bi rafet na lool liggéey bi nag ñoo ngi ci. démb la ñu tàmbale fas yéene cee nekk rek ba dégg ngërëm ñuy ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi te wër sëñ Muntaxa yal na fi yàgg lool te ànd wër noo koy ñaanal bu baax mu yàgg fi te ak wër sëñ Amdi Moodu Mbend noonu lañ ko koy ñaanalee mu yàgg fi lool moom it te ànd ak wër di ko ñaanal sunu jàmbaar ji sëriñ Cheikh Ndigal ak képp kuy wuyoo rek ñu ngi leen di siyaar bu baax di siyaare mbokk taalibe yëpp di xam ne moom sëñ Tuubaa lu mu bëgg bu ko waxee maam Serafal looloo dana am ah ñun nag ñoo ngi fii di ci sàkku ngërëm rek ngërëm a Sëñ rek ba koroog liggéey bi mat rek jaajëf dong lan fii xaar amatuñu fu ñu jëm amatuñu lu ñuy wax amatuñu dara suñu kër yi tëj nañ ko soxna yeeg ñëpp ñoo ngi nii waaw maam liggéey Sëñ Tuubaa gi rek moom moo nu ñor ba koroog mu yàgg rek nu ko Sëñ Tuubaa bëgg rek noonu lañ koy defee ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax jërë ngeen jëf jërëjëf ku ne liggéey bi ak gis liggéey bi ni liggéey bi demee garab yi comme ni ñu koy déjjëree ak niñ koy defee ndax garab yi buñ paree dañu ko doon loo xam ne dañ koy jël yóbbu ko wala garab yi ñoom day doon loo xam ne dañ ko fi déjjate rek bàyyi ko ah déedéet garab yi maanaam lu ci ne rek liggéey sëñ tubaab bi la jëm ndax fi mu ne nii lépp loo xamante ne nii maanaam euh, ñi si borom bunt kër yi buñ ko soxlaa dañ leen koy jox buñ ko soxlawul dañ koy yóbbu ca Baay Faal ga bu ko defee dañ ko fay weer ba mu wow woowee ñu toj ko def ko ay matt nga xamante ne nii maanaam dañ koy defaat ci ndoguy Cheikh Fall yi liggéeyee la ko Cheikh Fall waaw lépp ci liggéey Cheikh Fall bi rek la jëm liggéey Sëñ Tuubaa bi waaw moom fii moom amul lenn luñ fi dañ lépp lañ koy bàyyi bu pare dañ koy roñ am fu ko dajale mu nekk fa di fa xaar ndigal rek saa su ko Sëriñ Tuubaa joxee ñu soxlaa ñu joxaat ko ko. kon garab yi mel na ni kon loo xam ne buñ ko waajaloon tamit mën naa dem ci euh, jàppandal bés bu ñu demee ba ci weeru ba si ci weeru koor yi ndogu yi. waaw loolu mën na ci waaw mën na mën naa doonu matt nga xam ne dañ koy dañ ciy liggéeyal Sëriñ Tuubaa waaw. waaw loolu daal moom fu mu ne nii moom moom mooy ndigal moom moom ci lañ nekkagum nii waaw Fall jërëjëf jërëjëf ku baax jërëjëf ñu ngi leen di siyaar bu baax jërë jëf di leen sant bu baax di leen ñaanal seen télé beeg rajo bi yàlla na ko saa borom yaatal ba mu yaatu ni ngeen ko bëggee yàlla ko Sëñ Tuubaa noonu ci darajey maam Cheikh Fall kontaan nañ ci yéen bu baax a baax wax dëgg yàlla jaajëf jaajëf an sax waruma wax ndax samay jëriñ yi <laughs> ñoo ngi fi ñoom ñoo war wax waaye nag noo bett rek moo tax nuy bari ñu di ci barkeelu rek waaye jëwrin yaa ngi ci biir bu ngeen jàllee ci biir di ngeen gën a dajeeg jëwrin yu mag yi bu ko defee lu ci bari dinañ leen ko leeral waaw jërë ngeen jëf <laughs> jërëjëf baal ñoo ngi waat fii ci liggéey bi ba léegi ànd ak yéen ci liggéey Baye Fall yi nga xam ne moom lañ joxe ndigal ñu fas yéene cee ànd yéen comme ni ko sëriñ bi bëggee Saxum Touba teewoon tey jii fas yéene ànd ak yéen ci liggéey bi yëpp comme ni ko sëriñ bi bëggee euh, tey jii ñu ngi daje woon fii ak soxna soo xam ne dafa bokk ci liggéey bi soxna si ñoo ngi lay ziar bu baax a baax. maa ngi leen di delloo ziar bu baax a baax. soxna si liggéey bi tey lun nga ci yëg ak ban mbégte ak ban pas-pas nga ci indaale bi ngay jóge si. liggéey bi moom ni ñu ko mën a yëgee mooy ndigalu Serigne mun taxaar moom mi nga xam ne moo fu nekk Serigne Touba di xalifa bépp kulli murit Baye Fall ak ñëpp li mu xam ne moom mooy suñu mooy suñu xalifa général lépp lu mu ñu digal moom la ñuy def lu ñu tere ñu bàyyi ñun moom ñu ñooy mooy Serigne Touba ñun ñooy Serigne Fall danaa ñu def leen ñu def bàyyi leen ñu bàyyi ñun daal ñoo ngi ci ginnaawam lépp lu mu ñu wax def leen ñu def lu ñu bàyyi loo ñu bàyyi. ànd koog moom nag ba àjjana nii rek. waaw ku ne Baye Fall daal di ndigal te ku ne ndigal jëfe ndigal yooyu lan nga ci soññi sa morom mbokki julli jigéen xanaa nag ñu am am yar ak ak teggin lépp li nga xam ne moom lañ fi ut si tamit yàlla dëppoo li neex sëriñ bi di ñaan nag lépp luñ fi ut yàlla dëppoo li neex sëriñ bi di ñaan ci kàttanu borom bi subhaana wa taala ñu nekk ay ndaw yoo xam ne yu amu taalibe teg ci am ay yar ba lépp lu sëñ bi bëgg ñu dox ci loolu daal ci lañ nekk. di ko ñaan nag ak bépp mboolem jullit ñu gudd fan wér ñaanal suñu xalifa général sëriñ Amdi Modou mbenn yàlla suñu boroom bàyyi ko fi saxal ko fi guddal fanam ak bépp xalifa rek ñoo ngi leen di ñaanal. ku ne ku ne ndigal daal di daal di jëfee ba léegi ci loolu lañ nekk. ndax fi ñu toll nii soxna yi dañuy bu ñëwee ci Baye Fall bi pas-pas bi ñu am ndax loolu la ñu continuer seen biir kër yi di am pas-pas wala fii ci ci liggéey bu Baye Fall bi woote rek moom dañ di ay soxna rek di ay ndaw. topp ci suñ ndigalu borom kër yi ak suñu sëriñ yi lépp lu nga xam ne moom ngeen ñu digal ci lañ fas yéenee nekk lu ngeen ñu bàyyi loo ñu bàyyi ko lañ xam jëfee loolu daal ci lañ nekk. yow daa mel ne yow waa Kër Baye Ridial moom lañ. alxuraan waaw. looy kon mbokk yi nga xam ne ñoo nekk. ñu gën a góor góorlu rek gën a jàpp nga xam ne sëñ bi moo ñu fi liggéeyloo mën naa ñu def leen ñu def bàyyi leen ñu bàyyi. lépp lu ñu sëñ bi tegoon ñu tegu ko ñoo ngi nii ba ajee suñu bakkan sax dañ ko ciy teg xam naa jaajëf <laughs> ñi ngi fii ci Touba corniche su Guédé ngeen jàkkaarloog ñun ñi bu ngeen gisee jëmm ji nga xam ne moom ngeen jàkkaarloog moom la ñuy wax Sëñ Cheikh Mbengue Baye fal ñu gën koo xam ci liggéey maam Cheikh Ibra Fall di Baye Fall ci kër maam Cheikh sëñ Cheikh ñoo ngi lay siyaar bu baax a baax Fall jërëjëf sëñ Cheikh Loum ñu ngi lay doolu siyaar bu baax te di leen jaajëfal bu baax ci liggéey bi nga xam a koy defal sëriñ bi ndax moom nii rek la yoon wi moom daa toll fu waaye nekk sa kër de xam fa liggéey bi toll kon ñu ngi leen ci jaajëfal baax a baax di la siyaare bu baax. Eh, jërëjëf sëñ Cheikh ginnaaw bu ñu la nuyoo ci kaddu yi la war a nuyoo di la sant bu baax ci liggéey bi ginnaaw liggéey bi pas-pas bi nga xam ne moom la ci Baye Fall am ak ndigal te ku ni ku ni Baye Fall ni ndigal te ku ndigal jëfe loo ñuy wax ci diggante ndigal loolu ak jëfe jërëjëf sëñ di la jaajëfal bu baax di jéggul nag ci kaddu ñu yëkkati ndax. kilifa yaa ngi fi te yëkkati woon nañ kàddu ñoom dañoo war a yëkkati kàddu waaye eh, nag comme que ndigal la ñu fas ñee ci tàbbil suñu kàddu rek mooy ndigal moom niñ ko waxee rek caabi la su ëppee du ibbi bu yéesee du te Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baye Mouridina moom moo matal lépp di yor baatum ndigal ñu xam ko ci ndigal jëfe ndigal loolu nag daa jiitu woon suñu dudd day mel ndigal loolu moo taxawal yoon wii nga xam si ni mooy yoonu murit ndigal nag mooy yoonu Baye Fall loolu moom ñëpp xam nañ ko ndigal leet bi mu jógee jugee fu mat a jugee ñëw fi mat a ñëw mooy kër Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baye Mouridina day mel ne ku bàyyi xel kilifa yi ni koy waxe woon ca commencement ba rek mooy bu ñu jotee ndigal lañ ko waajal kem ni ñuy waajale ndigal yëpp ndigal nag waajal nañ ko bu baax. ba tax bi mu egsee ci démb ñu commencé liggéey bi ni ko Cheikh Mamadou Mountakha digalee Cheikh Ibrahima Fall bay Baye Mouridina di sëriñ am di Modou Mbend Fall joxe mbokki bay Fall yëpp ñu war a yaatalaat xar-xaru kanamu dëkk bi. ñu njëkk ko ci corniche bi nii kon day mel ne boobu la ñii ci corniche bi waaye nag Touba ni nga ko waxee rek ndigalam dañ koo jox Baye Fall waaye yaakaar naa ñi nekk seen bunt kër sax ñoom ñoo njëkk a jekk ndax njëkk Baye Fall egsi ñoom lépp loo xam si nii dana yombal Baye Fall seen liggéey def nañ ko bu dee ko fi am bagage àndale nga ko bu dee ko fi am lu yàqu àndale nga ko ba noppi nag ñoo wàccaan nag ànd ak ñun ci liggéey bi kon daal wax dëgg yàlla liggéey moom wax dëgg fa yàlla ànd nañ ko waa dëkk bi yëpp day wax ne moom nii rek la Baye Fall moom ku leen gis xam ni dox doxuñu lu ndigal te buñ ne ayca ñu ne ayca waaye buñ ne taxaw la taxaw kon loolu rek mooy ndigal yi te it wax dëgg yàlla am nañ ci ak kontaante ak mbégte ndax lii moom yaakaar naa ca commencement bu ñu yaakaar ne luy metti la waaye tey tey rek ku fi jaar te aggugut da nga xam ne lii moom moo war a am kon ñu ngi ci sant baax di ñaan suñu ma defal ñu ci tawfiix rek bañ gën cee gën a jekku ndigal ci bàkki Serigne Fall Lamp Baye Mouridina sëñ Cheikh ginnaaw euh, kaddu yooyu lan ngay soññ suñ mbokki Baye Fall yi nga xam ne ñoo nekk ci liggéey bi ndax liggéey bi ku ko gis xam ne doon na liggéey bu metti bu tar te yàgg lan nga leen di soñ <laughs> Baye Fall daa mel liggéey bi miin nañ ko lool Baye Cheikh de liggéey moom miin nañ ko lool Baye Fall moom ay ci la xam waaye xamut lu mett ak lu sedd déedéet moom donte dañ koy commencé tey moom liñ ci xaar mooy baatu ndigal la ñuy xaaral rek waaye tëkkuñu ko rek ci condition bi day jeex rek ñu boo wàcceet la ca desaar mooy euh, euh, kàmb yoo war a sëkk ko sëkkee ci mit ñëwaat marché ogas suñu àggale bu ñuy joxaat la ñuy continuer waaye wax dëgg yàlla Baye Fall moom xamul lu metti lim xam daal mooy ndigal te ndigal lu mu jot mu sàlla dana ko jëfee kem kàttalam Hmm. jërë ngeen jëf kon sëñ Cheikh sëñ Cheikh lan ngay tàggatoo ak suñu mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan. waaw ah, xanaa di tàggatoo rek di bàyyiloo xel rek mboolem taalibe yi nga xam si ñoom lañ bokk Serigne Touba. di wax ni lii moom day liggéey boo xam si nii ba yoonu sosoo ba léegi fu yoonu toll moo ko tollale mooy baatum ndigal ak jëfe ndigal lool rek moo sos yoon wi muy yoonu murit waaye moo sosit taalibe ndax baatum ndigal mooy bi sëriñ bi wootee joxe ndigal la mag ñi baax ñëpp da wut si ko maam Cheikh da ci am ab cër nag moom ndax bi mu dikkee nii muy doxee moom ba mu dikkee noonu la doxee te loolu lañ ko toppee kon de wax ni ñun ñëpp ay taalibe lañ ndigal nag bu jotee jot na su jàllee jàll na waaye ndigal moom amul lii amul laa bu waat bi xasee jug rek lay jëfe mooy jëfe ndigal la yàlla nañ tege ci yoon wi jëfe ndigal te xam ni suñu jariñu tey ak ëllëg mu ngi ci ndigal li ndax mbir mi nu metti metti metti metti metti képp xam si nii sa kër da ngaa yem fa nga yem muy muy ndigal li ànd dara yàqaluñ la dara waaye nag ko wàcc yoon yow yaa wàcc te nag aw yoon daa metti kon daal nañ fas yéenee tege ci yoon wi yooyu nag mooy lii rek mooy daal lépp loo xam si ni bëggu sëriñ bi la nga nekk ci lépp loo si du bëgg sëriñ bi nga fas yéene caa bañ a jaar yàlla si su ma defal ak jekku ndigal rek ci barke Cheikh Ibra Fall Lamp Baye Mouridina wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di daal di ziarewaat bu baax a baax ñoo ngi àndoon ak suñu Cheikh Mbeng Baye Fall kon sëñ Cheikh jërë ngeen jëf kàddu yi am na solo lool te leeral li tamit leer na naññ ci mboolem képp koo xam ne ñoo lay seetaan sëñ Cheikh kàddu yi am na solo lool lool ñu ngi leen di ziar bu baax te di leen balaa xam nga jërë ngeen jëf waaw liggéey bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu bi ñuy sant yàlla sant Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg ànd ak wér ak fi ci bàkk di ñaan waa kër sëñ Touba ak waa kër Cheikh Ibrahima Fall gépp yàlla suñu borom bàyyi leen fa suñu borom kattan na leen ah, ñi ñaan ak bi ndigal li mu fi joxe dem ba léegi a ah, ñu ne ci waar bi bàyyi faale ne ci waar bi kon ndigal rek la ñuy woy ndigal la ñuy jëfe ndax gis nañ nax lu ñu def ci mbedd yi gis nañ garab yi ñu daaneel gis nañ bàyyi faal yi lu ñu def tamit ci waar bi ndax kat kenn ku ne ndigal lay jëfe kon sëñ bi joxe ndigal kon nañ bàyyi lépp dem sa waar ba ah jëfe ko ba mu jeex ba sëñ ba joxewaat ndigal la kon li xëy na sunu bopp rek lañ ñu koy lañ ñu koy defal dong ak suñu wér gi yaram ak suñu jàmm yaram ndax kat ku la ne kaa ñu defar ak dëkk defar ak mbedd ah war nañ ko mën a war nañ ko mën a toppatoo saytu ko ba xam ne lu sëñ bu bëgg ñu def ko ndax ñoom moom seen dëkk lu leen neex lañ ko lu leen neex lañ ci def ndax am nañu droit laaj seen dëkk am nañu droit laaj seen dëkkin bi a ah ñu mën koo defar ndax Baye Fall ndigal rek la mën a wëy ndigal la mën a jafe kon ñu sant sant bu baax sant waa ka Seex rek gi yëpp di sant bu baax salaam. الحمد لله الكريم سلمنا على صغار بفرد وسنن سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني